waaw yi ba tey ni ñu leen ko waxee ñu ngi nii ci xew Oustaz Modou Fall bi ñu fekk fi na koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci réew mi mbay lu waral sa teewaay ci bés bi. waaw Oustaz sama xarit la Oustaz sama waay la waaw depuis sama xarit la dafa ma bëgg ma bëgg ko waaw dañoo bëgg ba pare bëgg ki ñu xam ne suñu xarit la mooy Aziz man sama xarit dama mën xarit gis nga yow mii guy gi su ma xamee ne Aziz sa xarit la wala Ba Ndiaye sa xarit la. wala këccëb sa xarit la dama lay jàpp parce que ñooy samay xarit lañ quoi waaw damaa mën xarit quoi parce que moom tamit ñu bokkoon fi ñu doon liggéeyee TFM mu ñu ñu ñu ñu kii xam nga may waxtaan ak moom muy waxtaan ak man comprendre ka ba def yàlla def ma di jóge fa réaction boobu dagguma ko ma continuer ko. Ah, waaw ku baax la ba pare ma dem tamit wiiri di ko fekk si Aziz Ndiaye ki nga xam ne Aziz. moom laa bàyyilee sam bopp dakaar ak Baye Ndiaye waaw ay ñoom Pa mu nekk ñu nekk famille ma gën koo jox cër si loolu kon maanaam euh, su xewle woon maanaam fu mu xewle fii ba ajak jeg sax su doon dox loolu ma fay dox dem. d'accord jaral na ma ko. mbay ma ñëw ci li nga xamante moo waral coow li ñu bari ni mbay dañ koo dàq de TV <laughs> émission guddi gi mbay moo ko doon doxal mbay moo daan andi invité yi Mbaye kenn gisatu gaa yi bari nañ koo dàq. waa xam nga foo xamante ne euh, toog nga fa tamit euh, toog nga fa gisoo fa euh, kii daal gisoo fa loo xamante ne ku la arrangé xaw ma lu la arrangé nit ki li la arrangé rek ngay def. lan moo waaw Yves ku baax la bi ma fay bi ma bi ma bi ma damaa bàyyi TFM affaire yi metti woon quoi. affaire yi metti woon torop torop torop xam nga li ma la wax parce que ñëpp xam nañ ne gars suñu la gisatul si télé te defoo dara day metti is moo ñu lay dégg mu waxtaan ak man ne ma daa am benn concept boo xamante ne moom lay def euh, DTV waaw ma ne ko waaw ba duma la ko bañal comprendre nga damay ñëw waaw ak mu am lu mu fa dee ba ñu waxtaan ba juboo ba ma ne ba ma ne garaawul comme li may toog juboo ci prix wala non Pape dama ko doon gunge noonu rek xam nga parce que il war na ma yar balaa balaa kii la balaa balaa guddi gi la sama xarit la daf may conseiller comprendre nga daf ma daan yàgg conseiller comprendre nga daf ma yàgg conseiller même su suñu juboo suñu nekkul si si sax dañ daan bokk ay ay programme mu naan ma lii ma naan ko lii xam nga su gisee lu kii wax wax ma mu am si man yéene. mu am si man yéene torop torop torop torop torop ba man fi mu nekk nii ku ko doon ku koy wax lu bon sax. bay dañ laa fayatul moo tax wax nañ ko wax nañ ko tegal mu tegalu dañ laa fayatul moo tax nga jugee émission guddi gi. non non DJ Yves sax xarit la xaritu ñëpp la mais dañ laa fayatul moo tax. non mais loolu tamit euh, euh, dëgg la mais fu may dem fu may fu may toog fu may nekk te gis ma sama bopp da ngay dem. waaw ñàkk a gis sa bopp bi kay mooy dañ laa fayatul moo tax nga du cadre dàq yooyu parce que xanaa ku ñuy fay ngay dàq lañ lay man yaa bëgg ay retour yoo xamante ne damay jot sama téléphone ñu ne ma ah xanaa dañ laa dàq ma naan xanaa ku ñuy fay da ngay dàq. <laughs> kon tey émission guddi gi yow Mara yi fa nekkoon ak invité yëpp yaa leen doon indi te yow kenn daw la fay. non non xam nga Yves sama xarit la. day jël si comp boppam comprendre nga jox ma ku baax la day jël li moom li nga xam ne moom la ma yéene jox ma ku baax la xam nga voilà waaw kay au moins euh, euh, daan nañ ma commencé euh, fay mais da lañ ma daan mosal quoi mais dafa ñu jékki-jékki nag gisatu ma sama bopp ba sawartu ma sax si liggéey bi xam nga te rus naa ko ko wax xam nga. parce que gars yi bari nee nañ mbay dafa ñëw jaxase télé bi ay ay plateau nit ñi dañ fay xeex. émission bi dem ba commencé d'abord rek quoi loolu bokk na ci tax ñu gën laa lu bon loolu la Sénégalais yi bëgg lu bon loolu la gars yi la Sénégalais yi bëgg ba Sénégal il faut nga déborder gars la seetaan mais soo débordé wul kenn du la seetaan waaw damaa xam nag folie Sénégalais moo tax ma ànd seeg ñoom waaw su loolu Sénégal ñoo bëgg ay affaire folie soo tegul folie kenn du la seetaan. maa ngi doon dégg sax ñu naan mbay nee na bés bu jógee guddi gi émission yi doorul doxati te tey la wàllu gën a ay. non moom mosuma di leen dama leen wax dëgg yàlla if man maa ko man maa ko estimé quoi dama koy ñaanal carrière mu bañ a taxaw vraiment te man tuuti naa si lu koy taxawal. parce que moom dégg naa defoon na fi ay émission sàppa digin yooyu yëpp da daan dox dégg naa waaw moom yàgg naa doxal émission comprendre nga su su defee émission boo xamante ne man jugee su ma fa jugee mi ngi dox su ma fa jugal du dax télé nit ki du ko doxal. xam nga télé mooy. mais mais guddi gi yaa yoroon xorom si nañu waxante dëgg. ah yow yaa ngi toll sa bopp di da ni doxal ma ne yaa yoroon xorom si yoruma woon dara il faut ko yor. yaa yoroon xorom si il yow tey fi nga toll ci liggéey nga def fa temps boobu yëpp di liggéey ci gratuit kenn du la fay tey ngay dem di lijjanti say invité déet te kenn du la fay. non non invité yi maag ñoo ko koy invité. dañu doon jël dañu doon jël suuf. non daaw ñu ma jël suuf de wax dëgg yàlla Yves sa Yves la ba tey tey la waaj waala gën a aay bi su ma jot na sax euh, su ma neexee benn guddi man damaa sentir guddi gi damay dem toog ataaya xam nga béykat di delluwaat xam nga parce que yor benn réseau boo xamante ne fi nekk nii dafa commencé dox loolu daf may tënk si lu bëri damay sonn quoi mooy vidéo yi ma commencé lancé. Ah, la da laa tënkoon. waaw dama dama dafa commencé woon tënk parce que yi damay dem tournée ji affaire day xat quoi léegi su ma ñëwee fekk de 22h day jot quoi. léegi damay damay fas te ñooñu loolu dafa ma jur dafa maa ngi ciy am xaalis quoi sama njëriñ la léegi su nekkee su nekkee nag amoo woon dara lu def maa moom wax dëgg yàlla bakkan laay laaj waaw. mais Mbaye boobu ñu gis ni jël nga ay risques dama fa jot ay menaces tey est-ce que mor nañoo mën a xëy xëy rek dàq la nii comme bonjour. non non dàquñu ma maa bàyyi waaw maa bàyyi. yeah euh, euh, kii. c'est que Sénégal jóge si Kouthia may dégg ay retour yu bëri influenceurs yi di génn naan mbay si ko Kouthia dàqee fu mu jëm mbay Kouthia Kouthia da ko doon mottali mbay xamul dara comprendre nga lu ne laa ko Kouthia moo daan xaw ma lan ak lan influenceurs yi may déglu rek ay commentaire di déglu kii léegi fallait que Yves bi ma proposé loolu ma jaayante pour prouver waat ñu xam ne kon kon mbay du leen loolu rek la mën xam nga la mbay mënal na leneen comprendre nga ma wëlbati carte gi ndax sénégalais dem na ba léegi commencé nañ ma nangul waaw dañ ma ne ma mbay xamul dara mbay amul place tele mbay kii mais léegi fi mu nekk nii euh, euh, xam nañ li ma mën te su beneen émission su ma amaatoon beneen émission boo xamante ne sax mën naa defaat leneen. yow biir émission guddi googu noonu Yves moo la doon mosal wala borom tele bi moo la doon mosal. non Yves moo ma daan mosal waaw Yves Yves moo ma daan ko quoi mais comme c'est léegi am naa si lu ma jàpp wax dëgg yàlla maa ngi jëriñ sam bopp moo tax ma ne xaar ma demal sam bopp waaw. mais Mbaye est-ce que yàgg Yves lan moo tax Yves tee loxoom. teewul loxoom de non non man ma arrêté. moo tax lan moo tax mosoo lan moo tax mosatoo. non non mais non non daf may mosal mais mos boobu xam nga. du da nga ni ma Yves da la doon mosal léegi mosalatu la moo tax nga arrêté. guy gi guy gi damay dégg dama ne dafa ma moo ma daan mosal mais temps bi dafa gaaw xam nga wala temps moo gaaw le temps ay at dafa gaaw xam nga wala monsieur yow fii fi mu nekk nii doon jox fii cinquante mille doo soo amee silifu bopp doo toog da ngay dem parce que at yi dafa gaaw war ngaa takk jabar war ngaa kii ay mos yorul kër comprendre nga foog nga dem ah régler sa lem feneen parce que sama réseau bi mi gis soo xam nga am na sponsor yoo euh, ah li may def maa ngi si am xaalis si mos. di si sama yaay di si kii ma gis naa sama bopp daal fan yii waaw. fee daawoo yónnee maire bi. waaw daan fay location bi. xam nga maire bi moom waaye rek <laughs> dana sama yaay dafa bëgg xaalis xaalis sama yaay deux heures yi la ma wootee ne dépense amul si kër gi xam nga loolu du ma arrangé il faut mooy xam nga damaa kaw muñal muñal ba sonn mujj gi da am benn instant boo xamante dootoo mën di toog. mais bi nga demee di Yves woon na la. waaw si non suñu tasee dinañ di xam ne day xat quoi moo tax du ma ko woo du ñu déggante xam nga parce que day xat quoi parce que émission guddi gi dafa metti man sax da daan xat si man ba du ma am envie di wax ak kenn. mais en dehors émission bi xanaa mbay war nga ñam ay relation di waxtaan di déggante. tase nañ euh, Mbacke baawal sëñ Mor ma tase nañ de. est-ce que di nga jël sa téléphone léegi woo Yves. waaw yenn saa yi woo ko mu fay téléphone euh, téléphone day fay xam nga day nelaw ak guddi gi xam nga guddi gi dafa métti 3 heures du matin ngay pare wala 4 heures du ngay pare ak yooyu da ngay day noppaloo yooyu waaw mais su ma xa su gisoon sama appel moom su ma ko woowee su gisee sama appel na ma woo parce que ay xarit lañ quoi te bëgguma mu yem fa. waaw bëgg na yeneen ñu sikk yeneen ak yeneen ak yeneen parce que Yves nit ku baax la parce que dafa amul problème quoi ku ñàkk problème la. ñu bari naan mbay gars dañ koy utiliser mbay tey mu ngi TFM suba mu ngi guddi gi gannaaw suba mu ngi ITV da ngay wër rek. non non parce que damaa gis dama koy jeex moo tax dama koy jeex xëy na su ma ko gisee daa toog quoi dama koy jeex nii gisagu ma ko quoi mais su ko su ma ko jeexee ba gis ko ba téye ko dañ xam ne lépp dëgg la ah mais nii nii nii defagu ma sax liggéeyagu ma sax parce que liggéey boo xamante doo fay doo doo doo si gis sa bopp ak yooyu dañ lay romb ku la romb ne mbay an sa oto ku romb kii ah mbay da day dox rek ku romb kii xam nga da dem dootu ko jar daal xam nga balaa caag nga dem ba gis loo xamante ne jar naa li nga doon jeex gis nga ko xam nga la nga mën a jag jël sa responsabilité def sortie bu wóor ne fii ah bët bët laay joxe. <laughs> léegi lan moo tax nga jógee émission guddi gi rek tax tey nga dem di woo yeneen invité yi naan leen jóge naa fa ah, bu fa kenn demati parce que liggéeyatuma fa lu waral loolu. non loolu du ma ko def loolu du ma ko def loolu du ko def ah du ko def man invité yi samay xarit ñëpp say xarit na ko invité yi dem émission bu am la na ñëpp di dem parce que ah, émission bu baax la xam nga waaw. xam moo moo téye télé sax soo dee xool émission boobu su fa jógee woon defe naa télé ba dara dootu fa am waaw na gën a góorgóorlu te ah, yeneen tele yi tamit. Euh, euh, yeneen télé yi tamit bëgg nañ émission bi vraiment ñëpp a ngi koy seetaan émission bi ñëpp a koy seetaan vraiment waaw yeneen télé yi nag dama bëgg nag ngeen jënd <laughs> euh, émission bi. jënd émission bi. ñu ñu woo Yves waxtaan ak moom fay ko xaalis bëri mu dem. waaw Yves dafa doyal foofu mu nekk. non non doyalul de loolu laa non non parce que Yves ñaan na yàlla am lu gën a rëy loolu. xanaa te ñaan na yàlla a duul ñu xam nga. tey benn TFM bu mais tey bu ñëwoon jënd émission bi est-ce que Yves dina quitter foofu ñëw TFM. ah loolu moom moom lay arrangé nag loolu moom lay arrangé man yoruma gémmuñu Yves loolu su ngeen ko demee laaj ne ko ban télé dañu laa soxla est-ce que di dem wala du ma dem. moo tax nga ni nay leen télévision yi jënd émission bi. non non parce que ku nekk sa sa sa euh, euh, ku nekk li ngay liggéey dafa laaj ah, euh, gars fu ñu nekkoon. Pape Cheikh jaar na télé yu bëri kii jaar na télé loolu lay diisal permanence daal dafa baax si Yves quoi jaar fee jaar fee jaar fee permanence day diis waaw kay. li ngay conseillé mooy bu gisoon beneen télé bu ko xaalis si émission guddi gi mu dem. ah waaw loolu baax na day baax si moom parce que permanence am la daal permanence parce que Yves du émission bu euh, du du animateur bu ndaw animateur bu mag la Yves anima nga maam animateur la bokkul si animateur falaa falaa yi. barke alxuraan kam vraiment dër bu personnel la dafa daan motali. dafa tey talent am gars dese nañ koo gis. waaw gars yi waaw gars yi waaw waaw xam nga Sénégal kuy saboté lañ xam waaw kuy Sénégal kuy saboté lañ xam di tëlli tëlli di fecc fii di kii mais Yves bopp la quoi dama bëgg yéen nga xam ne yéenay borom bopp Sénégal ngeen di bàyyi el xel Yves ñu koy bàyyi xel di ko seedaan. loolu sa relation ak sa yaay. sama yaay <laughs> yaay sama lu ma am moom man du ma jox xaalis namp. du ma fay namp comprendre nga du ma namp daw du ma def dara man sama yaay rek barke alxuraan karim lu ma am. lu ma mbay ñan ñooy namp daw. ah <laughs> man du ma namp daw de man sama yaay rek barke alxuraan karim. mbay ñan ñooy ah, ñan namp daw. xoolal du ma du ma du ma kii du ma def dara vraiment mais may jox rendez-vous xeesalkat yi gars yi ñu ngi leen di promouvoir ñuy jaay xeesal gars yi ñu ngi leen di invité si plateau yi di leen defal promotion nañ arrêté quoi. parce que xeesal Macky Sall laay jël la ah, ah, Antoine Philippe Senghor sama xarit la Antoine nit ku baax la ku jullite la dama bëgg mu jël responsabilité am tëj tëj jaaykatu xeesal yi xaw ma seen bitig yi ñu tëj leen. dañuy daan seen waaye non non xeesal baaxul poison la. man sama xarit la. non non xeesal baaxul dimbale ma ngir yàlla si la Sénégal na na na Antoine Philippe jël responsabilité am parce que poison gëw ma assassin xam nga ñan ñoo assassin yi jaaykatu xeesal yi.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 76 96 wala nga def 77 285 38 38.